waaw man de maa ngi leen di nuyu li ma taxawee ci Croix-Rouge de maa ngi ko dalee ci jënd carte membre ma jënd sama carte membre bokk ci comité ba yàgg yàlla def mu am comité bi ma amee comité bi ñu renouvelé ma bokk membre de conseil d'admission de départemental ñu dem ba yàgg ma nekk bureau départemental ñu dem ba yàgg. ma nekk membre de conseil d'admission national ñu dem ba yàgg ma nekk président départemental de Mbacké ñu dem ba yàgg ma nekk président régional Croix-Rouge du Diourbel ma dem ba yàgg ma nekk quatrième vice président national ñu dénk ma chargé de femme liy jigéenu Sénégal ci senegal yi yëpp ci li yëngu ci Croix-Rouge président national dénk ma ko muy la suñ président Abdou Aziz Diallo tey fi ma taxaw nii. maa ngi ci sama ñeenteeli renouvellement te départemental de Mbacké ma nekk ko ma ànd ko ak waa comité départemental bi ak waa sécurité yi départemental bi ñoom ñëpp ñu maase wax dëgg yàlla yàlla na ma leen yàlla fayal ñu ànd ak man 100 pour cent amut kenn ko naan fii laay jëm wala faa laay jëm ndax département Mbacké nekk na bu fekkoon muy lu ñuy décorer ab département kon département Mbacké danañ ko décorer. ndax am na loo xam ne Sénégal yëpp benn département amu ko fi benn amu ko fi ndax wate wate cent pour cent wate wate si wate amut bu yàqu amut bu niil amut compteur senegal yëpp booy boo yéen ay journaliste ay journaliste leen du ngeen ko du ngeen ko fa gis ma dem Paris nekk sama ñaareelu renouvellement ci président national bii. ñoom ñëpp Diourbel Bambey Mbàkke ñëpp dañoo maase ne président kenn du ko contre kon loolu mooy ma nekk président COAOS lii laa duggee COAOS waaw. mën a xayma liggéeyu Croix-Rouge. Mm-hmm. boo ko doon xayma looy wax. ma koy xayma ci ñii laa koy xaymaa waaw ndax croix dangay ngay jënd carte ñu nuwale fal la nga nekk président mais soo nekkee président ak sa membre du comité yëpp lii ci sama gannaaw dif ni ñii ñoo amee doxalinu Croix-Rouge waaw ndax euh, ñoom ñooy dem ci màggal yi ñooy dem ci liggéeyu sëñ bi ci àll bi ñooy dem ci boo yàlla lépp lu xew muy loo xam ne lu dansé la ñoom ñii ñoom ñii ñoo ñoo koy def kon bu fekkoon président national du lu ñuy wate du kon ñoom ñi ñooy doon président ñooy doon président ndax euh, secouriste yi ñooy paris ñoo yore Croix-Rouge muy Sénégal yëpp département boo dem bu fa secouriste yi amut booyo ba ma ne Croix-Rouge amu fa ndax lépp lu Croix-Rouge soxla ñoom ñi ñoo koy soxla ñoo koy def ba ci màggal Tuubaa gi tey gis nga leen nii incha allahu ñoo la médecin régional ak médecin départemental ñëw fi ci lépp luñ soxla ci ñu leen di jàppale ci màggal gi ci ñoom ñi lay jóge ci ñoom ñi lay jóge waaw Croix-Rouge nag euh, suñ président bi nga xam ne moo ko yow di Abdou Aziz Diallo wax na ne ndaw yi fépp fu président départemental nekk nañ bàyyi xel ndaw yi di xalaat di di leen di leen jox seeni xalaat ñu di leen ci jàppale ndax moom président national Abdou Aziz Diallo xam na ñoom ñii ñooy kan ba tax na bëgg na lu mën ci kàttanam ñu jàppale leen ndax ñuy liggéey ngir yàlla kese kese la ndax amuñ ci fay amuñ ci dara le waaye nag képp kuy liggéey ngir yàlla yàlla dana la fay ndax yàlla ëpp ñëpp fay ndax euh, dem ci màggal am fa ñetti fan di ma ko fundooñ lu ne ñu dal la léeg-léeg sax ñu dem ci génn kër goo xam ne xëy na néew na na ma yàlla baal waaye am nañu dañ leen di far fàtte sax ci jumtukaay ba dañ leen ci xaw a fàtte xaale ba lañ ci war am duñ ko ci am waaye du yàq ci seen liggéey léegi léegi ñu dem ci kër kilifa yoo xam ne wax dëgg yàlla dañ leen di fonk teral leen ci xam ne ñii kat ah, dañuy liggéey ci màggal gi di liggéey Sëriñ Tuubaa moo tax ñu di ko fa liggéey kon Croix-Rouge euh, ci nga laaj ma leneen loolu laa ci xam. li ma ciy wax mooy gis nañ ne fu mel ni Touba. wala Njaareem sax eh, yëngu-yëngu dafa bëri ci wàllu màggal ak nga xam ne ni am na yeneen i activités yoo xam ne nii activité aada lu mel ni yeneen yeneen foo xam ne yeneen yëngu-yëngu xam ne nit ñi dañ fay bari. Mhm. kon mën boo boolee màggal yi. waaw daanaka Jurbel moo ëpp lu muy màggal. Oh, boole koog yeneen mhm, waaw laaj na seen personnel bi ngeen fi yore membre Croix-Rouge yi fi nekk. Mhm. ndax laajul ñu yokk ko wala li ngeen am dina matal màggal. waaw moom li ñuy am ndax gis nga ko nii ñii ñëpp dañuy doolee ko ci li fi ne woon kon mën naa ne màggal gi ñoom nu mën a toll ak lu leen médecin national ak médecin départemental laaj mën nañ ko am ci seen département waaye ngir ñu yaatal yaatal bëgguñ ko aki moo ñoom dong ndax fenn fu ne ñu mel ne ñoom a ngi fa ñuy jël ci njaareem jël ci Bambey jël ci Kees ba léeg-léeg sax ñu jël ci Ndar léeg-léeg ñu jël ci kawlax ndax loolu lépp nag ñoom ñu ngi ko def ci seen ak yaatal waaye mënoon nañ ko yemale ci seen départemental waaye xam nañ ne màggal ak Sëriñ Tuubaa la Sénégal fenn fu ne nit dafay jóge looloo tax ñu ne président yooyu kenn ko ne ñu ne la indi nangam ñu àndandoo ak ñoom ñu ñu ànd bokk màggal gi ndax liggéey bi jafe na. Eh, jafe na jafe na waaye mën nañ ko muñ ndax fi mu nekk nii am na ci ñoo xam ne ñu ngi ci seen néegi sëy yow seeni i kër am na ci bo ñii ñoo xam ne ay borom kër lañ dañuy defi dépasse waaye teewut bu ñu nee waaw soxla na alhamdulilah ñoom ñi nga xam ne am nañ ay borom dañ leen di sant bu baax ndax dégguma ci kenn ku ne da tàggoo sa borom kër ne la doo dem te ku ci sa borom kër aaye woon doo dem. waaye xa nattu nañ leen seet nañ leen ba xam ne ñii ay caaxaan néewu ci pon néewu ci dañuy liggéey ngir yàlla ak sëñ Tuubaa moo tax ku ci sa tàggu sa sa ku ci sa soxna tàggu nga bàyyi ko borom kër yi war a defi dépassé donte ne duñu amee dépassé ku bu kuñ ci tànn ne la danga dem doo ci teg baat da ngay dem defi sab liggéey kon am na jafe-jafe mais jafe-jafe bi ñoom jànkonte na moom. ndax laajul ngeen am ay jumtukaay wala am ngeen waaw dana am luñ ci am am na lu ñuy laaj. lii dañ ñu ko jox lii duñ ñu ko jox ndax eh, ñoom lu mel ne ay baranka ak i tànt ak eh, seen mbu mbubu dosaaw yi ñuy sol ak yépp mooy tax ñu mën a nekk Croix-Rouge ñooy tax ñu mën a liggéey loolu nag matale gi jafe na ñu ngi ciy am tuuti tuuti ba fii mu nit ñi ci màggal gi am na lu ñu bind di ko yónnee président national ndax mu dolli leen ko ndax seen liggéey gën a mat waaw ndax itam nag eh, doom moom lu mën a mel ca weenu ndey walay nàmp ween wi nag moom mooy président national Abdou Aziz Diallo moo tax bind nañ li ñu soxla ci màggal gi wax ko ko xam naa ne moom it màggal gi farataal na ko yitteel na ko ndax moom ci boppam day at mu jot day jóge Dakar ñëw lépp lu mu man ci màggal gi moom it dana ko ci def wax dëgg yàlla waaw